c'est bon. c'est bon voilà mbokk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ginnaaw tey ci subaak léegi ñu doon déglu ki nga xam ne moom mooy suñu kilifa gi di Cheikh moom nag dugg na ba génne dañ koy bàyyi mu daal di wax ak askan wi ci li nga xam ne moom lañ ko doon toppee depuis boobaak léegi kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax di la masaw itam. waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu Sénégal yi yëpp di leen parce que tey mën naa wax ne peuple Sénégal bi yëpp seen xel ma ngi woon fii ci dikk. Euh, maa ngi leen ci mastaw bu baax a baax di mastaw tamit euh, suñu mbokk yi nga xam ne ñëw nañ fii ci bunt bi pour soutenir ma ak suñu mbokk patriote yi nga xam ne ñëpp ñëw nañ fi ñoom sëñ Mara Niass ñoom Baye na Guèye ñoom euh, maa nu mu tudd sëñ Moussa Diouf Lambaay gis naa ko fi ñoom Mampaate ak Lamiñu Daaru ak sëñ Assane Mbacke ak euh, mboolem ñi nga xam ne yëpp rek honorable député Cheikh naa appel am gis naa message am euh, maa ngi sant waa Touba tamit euh, particulièrement xalifa général de Mouride muy Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te ak teg sunu sëriñ tamit sëriñ Moustapha Mbacke mu Cheikh Abdou Sidil Makhtar ak sëñ Abdou Samad particulièrement Cheikh Bassirou Mbacke mu sëñ Abdou Khadir Euh, ñoom ñëpp lu coow li tuuti tuuti ku ci nekk soxla woon nañoo xam lan la ndax sa njaboot bu nekkee fenn nga dégg coow euh, ñu laaj lan la ak sama njaboot sama famille bopp tamit sama nijaay seexloo ak sama mbooleem membre famille ak waa sëñ Daaru Assane Ndiaye yëpp maa ngi parce que nag man damaa réew mi rek bu ma jógee bu ma yëngoo rek réew mi mooy yëngu moo la waaw même avocat yi tamit euh, maître mosa saar mi ngi nii taxaw maître Bamba Cissé Euh, fii la jóge ak moor moor Parkin tamit ci suba depuis suba ak mbay Fall bu ay de titre ak euh, sama avocat euh, maître Abdourahmane Diallo waaw sëñ Moudou Mbacke si Touba ñëpp rek maa ngi sant sénégalais yëpp voilà loolu laa mënta woon a ñàkk wax sax moo tax ma ñëw taxaw pour waxtaan wax loolu parce que boo fekkee danga jóg xelu ñëpp jëm fii boo génnee di nga wax génn nañ alhamdulilah ñëpp xam ko waaw ak Moussa baan am na rakku Ndoye Bane boo xam ne mu ngi fi woon ñoom ñëpp ñu ngi fi woon euh, li nga xam ne moom la la doon toppee fan la mujjee waaw euh, maa ngi nuyu tamit groupe Walfadjri maam Biram Wàcc ak ñoom Salma ñoom ñëpp Sénégal yëpp daal rek pour mu interview bi bañ gudd mm-hmm. waaw euh, li ñu doon toppee tey dafa nekkoon affaire diffamation man ak euh, mën naa wax sax mademoiselle Faye laa koy mademoiselle Faye laa koy wax waaw foofu laa yem <laughs> euh, ñun ñaar tey biñ ñëwee euh, dañ ma defal audition bi ñu paree moom mu ñëw ñu defal ñu confrontation loolu moo tax kii bi yàgg pour ñu bokkale enquête bi mais xam naa loolu suma avocat yi ñoom ma ci gën a mën a parce que enquête mbirum yoon la du ma si bëgg xam fu may tàmbalee ak fu may yem hmm. Euh, mais li ma mën a wax daal mooy suñu jotaay bii taxaw tey muy ñoom sëñ Assane Mbacke muy sëñ seex Thioro muy ñoom Mara Niass muy làmmiñu daaru muy ñoom Diop Taïf muy Ndiaye Touba ak mbooleem patriote yi tey ku xool di nga xam ne am na lu am Sénégal loo xam ne musta am mm-hmm. muy parti au pouvoir bu taxaw ci buntu buy toogaanu ci buntu commissariat di régler ab problème def naa ne loolu kenn mësu ko gis euh, loolu benn la ñaareel bi nga xam ne am na si mooy man bis na naka tey daaw euh, maa ngi woon central nekkoon ci loxo yoon police moo ma soxla woon bi may jël si jël si bu violent la ma jël si ay fetal la yore ñëw dajji sama kër Euh, yor dóor sama biir kër ay grenade lacrymogène te pourtant même police boobu moo ma woo tey ma ñëw wuy si même citoyen bi police soxla woon moo nekk man mii taxaw kon donc avancement bi nga xam ne am na mooy ñu woo ma ma ñëw loolu tamit euh, lu ma ci remarqué la ñaareel bi nga xam ne remarqué naa ko mooy euh, ñun dañ doon xeex Sénégal pour justice am fi pour dëgg am ci penc bi dëgg nag ñun ci yonante bi lañ ko jànge mooy bu ñu tëralee aw yoon ku am doole ak ku ñàkk doole doo ko xam ku am ay mbokk ak ku ko amul doo ko xam suñu seetloo Sénégal nag fan yii nga xam ne am na ñaari weer ñu sensé gouvernement ku ñuy wax ba siiru Diomaye Faye ànd ak président Ousmane Sonko ñu diggoon sénégalais yi ne leen suñu ñëwee dëgg lañ leen di yore sama taxawaay bi tey jàpp naa ne Bah Diakhaté <clears throat> li ma am ci nguuru joomaay jàpp naa ne Bah Diakhaté amu ko ci nguuru Macky Sall te fanweeri pelant ak lu topp police mënul woon tijji benn dossier ndax moom ci moom tey jàpp naa ne sama taxawaay bi war naa wane ne Sénégal sistis mi ngi fi te am na leneen lu gën a symbolique loolu mooy euh, Alhassane di militant Pastef dañ ko jàpp te pourtant moom saagawul da doon waaj a saaga ñu jàpp ko euh, teg ko loxo euh, am na keneen ku ñuy wax Idi Dionewar ci bi Diomaye nekkee président ak tey woo nañ ko ci yoon dafa def euh, dañ ko régler rek mu jeex waaye bi ko yoon soxlaa woo na ko malgré que kilifa la ci biir parti Pastef ñetteel bi koy def te mu nekk sax loo xam ne exclusivité la parce que xam naa sénégalais yu bari yëguñu ko donte dañ ne Adama Faye rakku Marème Faye Sall la jàpp nañ ko may xamal sénégalais yi ne am na rakku Bassirou Diomaye Faye boo xam ne euh, ñu ngi koy wax may Maysa Faye Maysa Faye njagañaaw la dëkk di rakk ci Bassirou Diomaye maanaam seen euh, euh, seen rakki doomu baay lañ maanaam ay doomu baay lañ euh, ku ñuy wax ay Diop Fall moo ko porte pelent ci affaire xaalis mooy kii liggéeyee TFM ki ma gis ñuy wax bari ki fan yëpp ñu ko doon dégg kooku rakku Diomaye mhm. ay frère ay frère lañ maanaam ay ay ay mag ak lañ ci rakku doomu baay bi nga xamee ne ay Diop Fall daf ko porté pelent mu ñëw wuy si dak ci police Euh, ñu am enquête enquête bi doyul procureur dafa garde à vue ba Basirou Diomaye boobu di may Maysa Faye mhm. Basirou Diomaye dafa wax maître Moussa Sarr mii nga xam ne moom mooy avocat président de la république Basirou Diomaye mhm. daf ko daf ko daf ko daf ko sant rek mu ñëw taxawul ko ab client mhm. rakam bi mu ñëwee taxaw en tant que avocat dañ ko garde à vue mu fanaan ci karo yi bi mu xëyee dem tribunal dem dem dem commissariat dem dem ca parquet ba mu nekkoon affaire xaalis ak lii nga may fay lii laa lay fay ñu mujj maître Moussa Sarr mi moo taxaw régler problème bi ñu fay mu jeex la kooku rakku Basirou la parce que ñoo bokk seen bàyyi ñoo bokk kon euh, defe naa ne loolu rek war naa mën a am joxe exemple bu mag parce que ku nekk xam na ne tey ki ma indi fii man opposition la bokk muy Thérèse Diouf fay ñun opposition bi dañu daan traqué di ñu jàpp mais daawuñu dugg ci kaso tribunal ci ci commissariat yi di plainte kenn te ku nekk gis na plainte euh, contre Mimi Touré ak euh, Mansour Faye plainte contre diffamation euh, Aïssatou Diop Fall journaliste la mais taxawaayam ci nguuru ci ci ci kanamu ñoom Ousmane Sonko lu ñu xam la te moom bi muy plainte sax jàpp na ne mënul plainte membre famille Diomaye di ci di ci am yo di ci am dëgg parce que ku ne gis na ko fan yi am na yaa ngi ko dégg mu naan booy bi pelante naa ko waaye ko moo bloqué na ngeen ma ko baal moo bloqué ndayu pelante bi lool ñëpp déggoon nañ pelante boobu mooy rakku mbokkum jomaay fay moomu loolu la doon wax parce que jàppoon na ne du mës a taxaw ñu jël rakku jomaay di ko teg ci kanamu yoon moom ñoom ñaar te pourtant yoon woo na ko garde à vue ko mu fanaan ci garde à vue loolu nag six mois ci ginnaaw ku waxoon na leen rakku président de la république mën nañ ko fanaanal kan moo ko fa fanaanal ñu ne ab opposant dañ naan loolu mënul nekk par exemple rek man ma demoon fanaanal Aliou Sall gardaaw bi kenn xalaatu ko woon hmm. donc kon lu ñu waroon a dox cinquante ans loo xam ne man bu ñu ma ko laajoon dinaa ne bu ñu xeexee fii cinquante ans Sénégal dina yegg foofu ñun dox nañ deux mois tey mën nañoo wax ne loolu am na Sénégal hmm. suñu jëlee Adama Faye mi nga xamante ne tey jii euh, donte génn na mais fanaanam foofu am na lu muy représenté parce que yooyu yëpp ay pelante la yoo xam ne dafa nekkoon ci tiriwaal yi kenn ñemewu ko ubbi bi dëgg ñëwee rek la loolu mën a ubbeeku ku nekk gis na suñu ministre de la justice bii di Ousmane Diagne pelante Ousmane Sonko la wax ne nañ ñëw ñu déglu ko rek matul ñetti fan ñu jëlee ko ci postam kon donc nit dof dof ndey rek benn commissariat mosu taxaw ñemee woo ko kon doñ naan xam ne loxo bu jubadi dafa nekkoon ci biir yoon mm. loola nag xeex na ñun sénégalais yi ba dindi ko ba loxo ba loxo loxo bu jubag bu jubatul amatul yoon moo libre di def liggéeyam mm. man loolu moom moom laa mën a euh, loolu daal moom laa mën a wax loo xamante ne euh, euh, dinaa ci mën a dugg parce que waaw sama diggante actrice dama ama am a avocat xam naa ñoom dinañ ci mën a wax parce que comme affaire dossier la du ci mën wax lu bari mais daal en tout man maa ngi dalal xelu ñi nga xamante ne surtout man waa Pastef sax laay wax man xam ngeen ma ça fait longtemps maa ngi def ay ay ay émission di wax mm-hmm. bi wax di jafe ñu may rëbb saa bu may wax euh, commissariat yëpp di ma déglu laa daan wax ba taxaw fii mm-hmm. barki dem bu wax naa leen fii que ne leen ba ngoom am na six cent terrain mm-hmm. su ngeen dégloo émission boobu wax naa leen ne leen jëlul jawmaay di yàkkamti ñoom ñëpp coowul suuf moo leen di indi ci commissariat yi defe naa ne bu ngeen ko waree xool di ngeen ko gis te des nañ yeneen. man yàlla natuwuma may faral di waxee suma bakkan wala may wax lu ma xamul. voilà man nag bi may dugg ci bunt bu mag bi laa jaar gis ngeen ma ki jaar ci paxu kañe yi dugg jaar ci paxu kañe yi génn kooku bu amoon lu ko neex dina ñëw fii wax ak yéen parce que xam naa na mën a micro. waaye nag amul problème ñun li ñu war ñu ngi ci incha allahu taala daal amul lenn lu nga xam ne dinañ ko wax te leeruñu wala ñu dem ba ci kanamu yoon ñuy layam layami lii si biir enquête bi nag man mënu ma si prononcé dama koy bàyyi ak suma ay avocat liñ si man a wax ñu wax ko.